ayca euh, Fred Jackson Fred ci loo ne. maa ngi sant yàlla. yaa ngi ci jàmm yaa ngi jàmm. ah ñu gisoon la ngay euh, ngay saaga nekk si TikTok di saaga di saaga di jaar fi ñaaw saaga nga waali saaga yaayam saaga léppam waaw lan la ban règlement de compte nga amoon ak moom ba bay saaga. waaw waali xam nga moom sama sama grand frère. Mhm. xam nga njumte moom du wees. te ni da te boo juumee da ngay nangu ne da ngaa juum. mais juum-juum benn la wala ñaar yoon wala ñetti yoon mais da nga juum juum juum juum juumaat la la def. non juumuma juum juumaat sax benn rythme bi rek la quoi. Ah. benn rythme bi rek la. Mm-hmm. mais Wally sama grand frère la. Mm-hmm. te kenn waru ko saaga. Mm-hmm. comprendre ah. référence la. Ah. waaw donc nag njuumte am na. samay kilifa woo ma. ku mel ni sëñ Mor Thiam. ku mel ni ñoom Kulu. parce que Kulu lu ma ñaan rek dama koy def. parce que gëree la te du ragal. comprendre te nit la koo xam ne tamit. xam nga am na fu ma ko teg daal. dafa may conseillé dañuy daje fu bari ah. mu may conseillé mm-hmm. donc moo tax ma bàyyi lépp waaw fas yéene di jégalu mm-hmm. Sénégal yëpp di jégalu showbiz bi uh-huh. di jégalu képp kuy artiste uh-huh. mais da nga jékki-jékki woon rek mu neex la rek nga koy saaga lan la defoon la loolu loolu laa bëgg a la yi bëgg xam la defoon non du loolu xam nga xam nga xam nga nit bëgg ko booy booy bu nit bu fekkee da ko bëgg mm-hmm. bëgg ko jege am ñu ñu nekk ci wet gi di la di la xeex comprendre di bañ nga jege ko xam nga di bañ nga jege ko loolu mën na la indi frustration nga mer. ah loolu lépp moo taxoon nga ni pour man waaye da laa da laa rayal wala ñu humilier la loolu lépp moo taxoon. non moom moom. Mhm. xam nga fi mu nekk nii mbay. Mhm. nekkuñu fi pour di sulli yu passé. Mhm. xam nga li ma la la passé. c'est le passé waaye xam na ma bu baax. ah xamante ngeen. xam na ma bu baax. moom est-ce que bi nga commencé bi ngay saaga. est-ce que def na benn euh, kii la pour wut si na la pour wala wala pour kii. non suñu problème man ak waa ji. Mm-hmm. xam nga ñan ñoo ko ñan ñan ñan ñoo ko ñan ñoo la ko mën a wax. Mm-hmm. Ndiaga Oro. waaw Papis Niang euh, kii euh, studio. waaw yaa ngi dégg. Mm-hmm. ak Ndiaye Rambo fa la ko fekk. ak euh, ak kii ak Toumani. ak Samba Kenn. ñoom xam nañ lépp. comprendre mais ñooñu samay grand frère lañ. Samba Kenn nit gënu ko. Toumani nit ku baax la. parce que dañu yemuñ yéene wàllu jàppale ma ñoom. comprendre defuñu ma dara. comprendre dégg na boo juumee mhm. tooñ da ngay jéggalu mhm. saaga kenn waru ko def waali mhm. maa ngi koy ñaanal jàmm Yacine may sa biige mais erreur la wala mais wala da nga gis xale boobu booy boobu pël boobu ñu dóoroon ñu ñu dóor nga tiit nga tiit xam nga dem daw laaxatu wala pour yow dañ man góor laa man du ma tiit man du ma tiit comprendre man du ma tiit xaw àdduna ñaar rek ñoo fi nekk dee ak dund da ngay am man dama gëm ne dama war a am xaalis wala ma dee wala ma dem ci kaso bi ñett yooyu laa gëm mais nag warul tax nga tooñ nga war a muñ jàpp ci yàlla ba yàlla changé mbir yi kon rëkër naa noonu euh, kon xam nga ni kon xale boobu booy boobu doon saaga dafa tooñ yow tamit da nga doon ko kan booy boobu saaga non booy boobu booy boobu booy boobu bokkuñu posture mhm. man ak moom bokkuñu de mhm. comprendre gënuma ko nag yàlla rek moo xam ci gën mhm. mais moom mi ngi suba teel comprendre man nekkuma suba teel non non est-ce mi ngi suba teel parce que presse bu waali dañ ko dàqante de waali te yow dàqantuñu na la waali dañ ko day dañ koy da turam dañ koy dàqanteeg ak waali kan kan liw waaw waa ñooñu dañuy wut tur noonu pour tuddee seen bopp waali man tudduma waali man Prince Jackson laa tudd mhm. Michael Jackson laa jël turam tuddee ko sama bopp ah, Michael Jackson waaw man Prince Jackson laa tudd mhm. mais waali man dama ko bëgg ba woy ko son mhm. parce que dama jàpp nekk ñi fi nekk di woy ñëpp moo leen mën moo tax ma woy ko mu nekk sama deret sama mbokk ñu bokk maam maam Rouba Diop ah. comprendre nga moo tax ma woy ko nan la lay ñu ngeen di nekkee ay mbokk yàgg waali comprendre nga nga man dañ ma saaga dañ ma dañ ma dañ ma diaboliser. ah dañ doon fay wala statut ma. doon statut. ah Faramareen dañ ma doon statut. Ah. Ah. comprendre di ma diaboliser. Mm-hmm. di ma tuumaal. Mm-hmm. bu mu bëggee jege waale ñu bañ. Mm-hmm. ma ñëw ci waale pour audience bëgg ko gis mënuma ko gis. ñu may atte ñàkkal. man jour tabaski kër waale laa yendu. bi mu dëkkee ci fi Viviane dëkk nii. jour tabaski damaa bàyyi sama ndey bàyyi sama baay bàyyi lépp ñëw këram falaa laa tabaski yendu fa taxaw ba ngoon jot. li ma lay wax nii ndaam loo boobu noonu sëriñ boobu booy boobu fa la ko fekk mhm. ak ñoom ñëpp fekk nañ li may wax mhm. xam nga li ma fifty fifty xam na lépp mhm. comprendre léegi fifty mooma mooma bu ma xoon studio kii ba ma daanu sama tànk am problème ama nga yi dem ba mu yàgg xale laa affaire yi ëpp ma doole ma mer di saaga comprendre mais saagawuma waali parce que waali dafa bon xam nga saagawuma waali parce que waali nii wala naaw mais waali sama kilifa la comprendre mamaa jaaga sama yaay la maa ngi leen di jéggalu di tuub comprendre di nangu ne juum naa xale laa seen doom laa sénégalais laa comprendre damaa juum ci jéggalu rek laa mën a def maa ngi leen di ñaan ñu jéggal ma ngir jëm yàlla a jërëjëf